gis ne suñu génération bu mujj gi ñëw sax laa ko mën a tuddee ñun ak suñu génération bu bees bi gis nañ ci sol yi ci comportement yi waaye ci kàddu yi nga xam ne ne sax ci la ñuy jokkalante ak ci seen moroom yi. waaw loolu lépp mooy ñàkk xam fu ñu teg seen tànk parce que àdduna du du du matériel. Mm-hmm. parce que jigéen ñi ci bari dañu jàpp ni solo summeeku toilette rek mooy mooy seen mooy seen àdduna. Mm-hmm. bañ na ko sax boobu bañ naa la damay def ba mu baax boo xoolee rek fi mu ne nii bu génnee ab toilette la lay wan wala damay tabax ba mu kawee ndoo teg ndoo teg benn birig daanaka ci toilette rek yoo xamante ne ni boo sëlmoo rek fi mu ne nii mu dañ. xam taar bi taar boo sëlmoo mu dañ. ndax loolu mag yi wax naan ko puudaru tax a rafet boo ñaqee ñaw. loolu bay bàyyi wuñ ko xel. waaye dañoo waroon a bàyyi xel ni dañoo war a tabax. adduna mhm. maanaam li ñu war a bàyyi xel. mooy liggéeyum ndey añub doom boob yi lañu war a bàyyi xel loolu jëf la mm-hmm. du du du ay wax mm-hmm. tey réalité la mm-hmm. ndax euh, ndey dafa am wàccuwaay bu am solo ci ci doom dafa am itam ab liggéey boo xamante ni moom lañ koy xaare boo xam dafa war a jeexital ci société bi am na ñoo xamante ni nag daanaka taxut ñu gëm ko waaye réalité la ndax waajuru jigéen bo beugé yar goné sax ya ngay tambalé ja nday mhm. ja motax moy wax toujours ni jigen ñi ngir defar société bi su tollé ci dem kër lañ wara sonu ci mom mhm. bala jog mom itam warna am way gu toll ni kimi muy mu xam kan la manam dom mënta ta ni barab sangam lay juddo waaye jigen sañ na ni ba eut sangam la bëgg sama dom juddo fa mooy diw bëgg mu doon sama baye dom, ndax qualité yi ne ci góor itam sañ na ni diw sàngam laa bëgg mu doon sama ndeyu doom ndax jikko yi na ci moom bu boobaa matériel day toxu bu boobaa aw askan day toxu bu boobaa itam alal day toxu waaye jikko mooy ñëw ak diine su jikko ñëwee ak diine rek nga am résultat. te de base moo ci waroon jiitu. de base moo ci waroon a jiitu. moo tax ma ne ba ñuy tabax foyer ba. Mm-hmm. booba la tambali won dom do xaar bam juddu nga commencé ko yar bo xaaree bam juddu nga commencé yar teuna la teuna mm-hmm. parce que fofu finition rek ka ci dess yang koy yar ba ngay wuti ndey ja ba ngay wuti bay ba mm-hmm. booba nga commencé yar sa dom booba lay commencé di imaginer sama dom non la wara mel motax wala fi day wax ni kep ko xamanteni ni ni càmmiñam bu la bul jëlub jigéenam mm-hmm. ndax bo jëlé jigen bay càmmiñ la rek ngay jur ndax lan moy sidit da fay royat comportement ak yoy motax buñu bëggé défar société bi faaw ñu wat ci baas ba défar jigéen ñi même mag ñi sax non lañ daan dunde amon nañ barab yo xamanteni ni kon ay jigéen yi tollu ci dugg ci négu sey lañ leen fa daan di leen yar di leen orienter di leen xamal buñ duggé ci biir négu sey yeen comportement lañ yor ba mëna am njabot gu baax da nga gis ci mag ñi seen taxaway yo xamanteni ni biñu dem kër liñ wara xam lepp def nañ ko ci ñoom ci nango muñ ci nango yaatu ak xam lañuy fekki ak itam comportement yi nga xamanteni ni lañ wara ñu comporté woo ngi ci gis mag ño xamanteni ni buñ musan toll barab ba kérok ñuy taggo ak liñ yor dañuy wor way ñu gis ni suñu magña tamit doon nañ def ni tay so waré jël soxna ñu la sa kër bay di wala demal sa kër nijaay diw mhm. te tay gis nañ ni suñu génération gi ñi am ni mom yaakaar naa loolu ci ndax koo xam ne kenn du ma tànn may waaw moo tax xamatuñ lu ñuy tànn. Mm-hmm. parce que ñi ñuy tànne du tànn waay. Mm-hmm. mag ñi dañ daan wax ni soxna kër ndey. Mm-hmm. wala kër baay. wala xame ju yàgg ja nga xam ne doo leen laajte duñ la laajte. parce que li yées ci góor mooy takk jigéen ba pare wëlbatiku doon géwalam. te loolu mooy li am mooy gone yi ki ñu takk ñoom rek ñoo koy xam. léegi saa yoo duggee ci biir famille bi yow ay féetewoo présentation ba. mooy nangam mooy nangam fële la bokk fii te du tax famille bi xam ko. Mhm. waaye bu fekkonte ne nii ca kër ndey nga takk deesu la laajte. fekkee kër bàyyi nga takk deesu la laajte. bu fekkente ni nii ci xamee ju yàgg ji parce que ki ma dëkkal juróomi at dëkk ak moom fukki at ñaar fukki at ak juróom fanweeri at. xam naa ci moom lu ma mën a duggee ci moom ak lu ma ci mën a génnee mhm. yooyu la gone yi dindi. Mhm. te itam lislaam daf ñu orienté woon ci nan la ñuy sampe kër gépp góor goo gis mu yor soxna. ñeent yi génn ko benn taar ci dugal. wala alal la ko toppee wala famille la ko toppee mu yax bu rëy ni Sénégal di wax donte kenn la ab yaxam tuutu ndax ñun ñëpp ci aadama lañu bàyyi ko waaye wala ngor ak diine ñeent yi rek ci la ñuy takk soxna. waaw papa suñu leen a jël. yonent bi sallallahu alayhi wa ne moom lañ suñu borom royloo ni lu mu leen indil bàyyi leen yonent bi dañ di ku ci jëlut koo xamante ni ci ngor nga ko jël ak ci diine. Mm-hmm. dóor nga sa loxo ci ëkk. moo tax bi ko société bi bàyyee di jël ci taar di jël ci alal di jël ci famille moo tax situation bi nii mu demee mm-hmm. moo tax wax ni lu dal gone yi mag ñu leen ko teg waaw ndax ñoo dérapé ñoo wàcc yoon yu ñu waroon a jaar mm-hmm. gone yi defuñu dara mm-hmm. te ñun ñëpp xam nañu gone yi tënañ kon ni gone yi juddoo la te it yar itam dafay dafay laaj ñaari waajur yi jël seen responsabilité dafay laaj itam xale bi ci boppam am na ci part de responsabilité. Mhm. beneen bi ci des mooy environnement bi. parce que ñett yooyu yëpp dafay. dafay participer mhm. ci yarub doom. Mhm. ndax doom ñaari nu mel ndeyam ak baay ma bi la daan wax ni doom bu nampee merum bàyyam su baaxee lu yàlla dogal la waaye ndeyam fàggulu ko dara ci lu baax. wallaahi waaw ah, léegi nga xool daanaka léegi sëy yi daanaka moo ko lalu poosé yam boo jëmalee bopp bi nii boo léegi nga dikkaat fekk mu jëmale ko ne mooy léeg-léeg ñu góorgóorlu léeg-léeg ñu yàng yàng dellu gannaaw. léeg-léeg daanaka rek. <laughs> yaa cay bàyyi waaye boo toppee rek sëy ba yàqu te loolu dafay influencé ci yarub yarub xale bi mm-hmm. beneen bi ci des mooy doy digg waajur yi nga xam ne daanaka dañoo démissionné ci yor mm-hmm, waaw dañoo démissionné mm-hmm. li leen lislaam santoon ci responsabilité bi ñu war a jël ci yar seeni doom lu ca bare bari dañ ko teg ci suuf beneen bi ci des mooy bu fekkee yaa ngi góor góorgóorlu di yar itam léegi en fi nga dëkkee muy xale bi ñi muy àndal ñooñu dañuy influencé ci moom waaw ah, da nga gis kër gone nekk fa ndeyam ak baayam ñëpp kenn du tudd lu bon duñ saaga mm-hmm. waaye gone gi bu génnee ca mbedd ma del siwaat nga dégg muy saaga waaw kay ca mbedd ma la koy jëlee leneen li ci des télévision yi ak nouvelle technologie yi nga xamante ni moo xew boo gisee gone yi ni ñuy fooyee nga xamante ni léeg ñu yor ay ay bant def ko ay fetal di door moy film yi ñi sétan lélé nga gis ñu tak ay xotti saako di simbu lélé nga gis ñu ngemb di bëré yoy yëpp moy jeexital moy yar ci bopum mo jafé fim doon ni ndax juntu kay environnement bi da fay ci jeexital bu baaxa baax ci yaranu gone mm-hmm. environnement bi moy milieu bi ma dëkke mm-hmm. bo gisé dëkk bi bu tedd bi am sens trop mm-hmm. ci walu yar moy environnement bi yu bare bari yu yaq dafee accès gut wala bu fi accès itam ñemee su ko fësal. lan la des fois ñu waxtaan ñu ne sëñ Bamba la moo tax fàggu laa leen géej Touba ma leen sëñ bi lim ñu fàggul moom xam na ko. waaw. tey bu géej amoon fii dana demee neneen. déedéet la taxit amoo fa moom xam na ko. su géej amoon sax. Mhm. dëgg dëgg sëñ Touba image am ni mu war a feeñee. Mhm. du ñu feeñee. wallaahi. parce que Touba toujours Touba damay wax ni tuubaa dafa dafa xaw a màcc Jolof. Mhm. mooy climat bi dafa tàng. ndox mi neexut amut geej amut pétrole amut jama mhm. salarié wu fi mhm. te dëkk bi eh, kenn dàqu leen aw dundin loolu moy manoré bi seigne touba am mhm. nga xamni ci lay gëna fessé bu amone geej dana aad ak ñu tafas la comme nangam ak na bu amone ci yoy ben rek dañ nan mbolo mi seigne bi wu leen fa waye li tax dëkk bi boole yoy ba paré nit ñepp wabi ko wut ci fi moy seigne bamba mi fi nek tax mom lañ ñak lool nak da fay jeexital ci ci dëkkin wi dafay jeexital itam ci jëflantin wi mm-hmm. lu yàqute bari bari itam faw mu am ay des desaan yoo xamante ni da xam ne jii buñ ko amélioré danañ am société bi ñu soxla mm-hmm. Nasr Maria Jaata ñu ngi may ci ndénkaane waaw kàddu gu mujj gi ci ndànkaane day moom mooy am nañ ay royukaay mm-hmm. yoo xamante ni mat naa bàyyi xel ci jàngataat seenu dund te jéem koo implanté ci sunu bopp jikko nag lu ñuy ji la di ko suuxat muy dañuy xool yi baax ñu jéem koo roy te suuxat ko ci sunu bopp euh, nit buy juddu morsa bu weex lay judduwaale xol bu set wecc lay judduwaale xol bu set wecc boobee nag lu ne mën na caa nekk mbaax mën na caa ne bon mën na caa nekk parce que daa borom borom xam-xam yi daa am ñu wax ni nit baax lay judduwaale am ñu ni déedéet bon lay judduwaale am ñu ni ñaar yëpp lay judduwaale ñu ni kon lan mooy tax mu baax lan mooy tax mu bon ñu ni héritage ak environnement bi muy dund ak ay waajuram ñooy éliminer benn bi bàyyi benn bi mu continuer buñ éliminer baax bon continuer buñ éliminer bon baax continuer kon dañu xam ni ñun am nañ héritage muy diine mooy sunu ndono am nañ ay valeur yoo xamante ne ni moom lañ ñu xamee woon démb am nañu itam environnement bu set wecc boo xamante ne ni man nañ faa dunde mën nañ faa jëmbat gàncax gi ñu soxla te dara du ko yàq loolu nag buñ ko amee am nañ mille sens pour mën a dem parce que wax ni Tuubaa rek nga mën a dajale junni gone yor bon ci sa loxo di leen laaj lii lu mu doon kenn du la ko ci wax bu doon ci réewi taax yi moom mm-hmm. kooku ci ni yi mun la li nangam la boo ko jafalee sax dañ naa la mi ngi jollee ci wet gii mm-hmm. bu dee ñii fi mu doon nii mën nga cee yor ab sébb taal ko kan loolu dañuy defe ni rek ngooñ moo tàll parce que xamuñu ko ñoo nag naqari wu ñoo jubbanti mhm. moo tax nu war a góorluwaat bu baax a baax mhm. ci jàkkandiku ci biir néegu sëy yi mhm. ngir mën a am njaboot gu baax waaye itam ñu gën a concentré wu ci yar njaboot gi ci teg leen ci canava yoo xamante ne ni bu ëllëg ëllëgee ak si biir danañ indi résultat bu baax bu ko defee jigéen ñi am nañ ay royuwaay waaye ñeneen ñi nga xamante ni ñoom lañ ñoom lañ ñu bëgg a joxoñ ci ay jigéen yoo xamante xëy na ay gor lañ waye ngor ngor gañ am jaayuñu ko mm-hmm. sun borom jaayuñu ko diine ngor nak ga ci gën moy nga jaay ko yalla mm-hmm. te gor ba gor jeex moy nga baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say nawle jom ba jom jeex moy baña dess ginnaw rek mm-hmm. bu jigen ñi kenn ku ci ne la xassayo fasiyene course bi ca kanam lay ne danañ bari ay exego waye bu fekke yang yang ji dafa bari itam fa tabarakallah lañ ni indil du doon lu kenn xam te deesu leen mëna def neen lu dul ni ci njabot gi rek lañu def bu boobaa nak ak delu gannaaw lay doon bu ko defee nuy soññ ñëpp nu bàyyi xel defaraatum jikko yi bàyyi xel yi nga xamante ne nii moom lañ doon tudd ci ak njëlbeen mm-hmm. muy soxna may ku la neex ci doom yi Tuubaa yi mm-hmm. wala ku la neex ci ñi ñu yaral seen bopp mm-hmm. ba def ci ñoom jikko yi nga xamante ne ni moo gën ñooñ ñëpp ay référence lañ gàttal foofu sunu kàddu wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ndaxte boo fi accès xam ni lépp lu baax la ñu jëli indi teg lii ci ay vaisselle bàyyeekoo ba Turquie bàyyeekoo ba Chine bàyyeekoo également ba Dubaï vaisselle yi mu jigéen dama ni baax na dëgër na boole ko rafet lépp lu ngeen ittiwooti si art de table ay service de table yu mucc ayib bu ñu ko tàmbalee mbokk si wàllum assiette mbooleem xeet bu ngeen bëgg nindi design du ca maxoom waaw bu ngeen di wër ay assiette plate am na fii assiette symbole et motif brin ngeen bëggee ay plat yu carré yu am élégance ak raffinement Ni mën ko utiliser seen ay xew wala chaque jour weer koor gi mbokk yi ñëw na lu bax rek bu ngeen koy wër bu ngeen accès fi si Design jàppale nii lépp yemb ba faaw am nañu ay vaisselle en porcelaine vaisselle en céramique et gamme de vaisselle service de table service de vaisselle yi ma gis fi mbokk yi dama ni doo ko fekk fenn fudul fi si Design vaisselle waaye nak mbokk yi bol ya am nañu ay bol yu andal couvercle ay bol thermo waaw bi nak grand modèle 24 heures sur 24 boo défé sa fii ubal xool dara du la si metti am nañu ay bool ensemble ay bool à soupe ay bool yu rond waaye tamit am nañu ay bool yu ovale ah dama ni jongoma ji gaaw leen gaaw seen barab a ngi nii di nindi rawat na nag weer koor gii nu jëm di weeru bànneex di weeru xéewal xam ngeen ni mbokk bët lu baax dong lay wër bu ngeen bëgg a tey gis lu rafet loolu taaru boole ko dëgër nangoo yàgg ñëw leen fii xol suñu ay récipient bii nag moom form globe terrestre la waaw ay récipient pour seen ay jus en apparence ngeen koy gis mu rafet loolu ci gët boole ko neex waaye nag la ci gën a neex mooy dafa ànd ak robinet ah damani li ni lii kun ko netali amo sens yamuñu fofu mbokki dañuy sogay tambali Nindi design vessel mo len indil ay ensemble verre si mbooleem xeet catégorie ay verre de luxe am nañu ay ensemble verre céramique ay verre à eau wala ay tasse de café ensemble soucoupe tasse yaa nga ci ay tailleur waye nak bu ngeen accès fi ci rayon bi di rayon carafe ay carafe terme yo xamante ni bu ngeen si café mën naa yàgg lool nak di tàng ngir seen ménage lepp lu ngeen mën ci bëgg mu don ay kuddu ay fourchette ay paaka ay panier pour pain ay barada jumtukaay yi ngeen di ittewoo ngir seen ay xew lu si mel ni ay cin ay bool yi gën a mag a mag ay paan sow bàyyiwuñu dara ba si satala njàpp lii ci ay napp man yi mbokk du ngeen ko fekk fenn fu fii si Nindi design vaisselle meuble wala tapis wala divers lépp lu ngeen mën ci bëgg man yi am nañu ay salade yi gaaw leen gaaw def seen commande wala ngeen ak si barab bii si du kër Serigne Abdou Karim Mbacke borom Makarim wax la woote leen gaaw 77 951 67 02. jërëjëf Baye Ahmadou Ndiaye Nguerane macha ci waxtaan bu am solo boobu nga xam ne tey indiloon ñu indiloon indiloon nga ñu ko kon yal nañ ci am ak ak rek ci barke Cheikhul Khadim ngi di internet yi doon topp leerlu point net euh, présenté ngeen amoon ci Aïcha Fall ma ànd ceeg sama caméraman Seynabou ak Seynabou ak ba yoon ci beneen waxtaan incha allah jërë ngeen jëf